ok alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom ci mu wërsëgal ñu ñu daje ci ab néegam fas yéene jël benn bind ca la nga xamee ni nii mooy ndigali ay yeneen ab yeneen tam yonent boobu nga xam ne danañu woon wa ma aataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu yonent bi digle jël leen lu mu leen tere bàyyi leen ñuy sukkandikoo it ci téere bi nga xam ne moo dajale waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog lenn ci ay waxam ñu tudde ko bulughul maram bu alxaafis ibnu hajar rahimahullah ñu ngi si woon ci fukkeelu téere bi ak juróom benn muy kitaabul jaami wala jël tey baabul adab muy bunt ba ca jëkk muy dimanche bi nga xam ni mooy 16 décembre 2018 di tombeek juróom-ñetti fan ci li nga xam ne mooy rabi ussaani ca maam yi di ko tuddee rakki gàmmu kon incha allah ñu jël suñu bind bu jëkk
كتاب الجامع الباب الأول باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم سجن إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم متفق عليه وعن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس أخرجه مسلم
kon mbokk yi suñu bind bi comme ni ngeen xamee kii di imam ibnu hajar rahimahullah téeréem bi da ko dajale ci ay téere mu daal di koy def téere bu nekkit mu wutal ko ay bunt looloo tax suñu bind bi tey mooy doon fukkeelu téere bi ak juróom benn man nga wax ni mënoon nañ ko séddale fukki téere ak juróom benn ba boo jàngoon tey liñ jot a jàng mel ne na jàng nga fukki téere ak juróom benn ci ay téere lii mooy kitaabul jaamic téere ba nga xam ne nag dafa dajale ay mbir yu bari la ca jiite mooy baabul adab mooy bunt bi jàngale ay teggin mboo ko xam leen ni jullit dafa am teggin yu dox digganteem ak boroomam digganteem ak yonent yàlla ba digganteem ak jaami yàlla yi xatta bàyyuma ya xatta yéeféer ya xatta digganteem ak bakkanam xadis bi ci jëkk mooy xadisi abi hurayra an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم ست aqu julit ci mbokk julitam day juróom benn la ida laqitahu fa sallim alayhi heure boo dajeeg moom nuyu ko wa ida daaka fa ajibhu heure boo xamee ni nii woo na la wuy ji ko wa ida stansaxaka fansaxhu heure bu sakko sàkkoo ci yow nga laayu ko biir ci li muy diisoo ak yow nga la way laayu ko biir wa ida atasa fahmida allaha fa shammituhu heure bu tissoolee sant yàlla nga la way na nga ko ndokkeel ndokkeel ba mi ngi noonu wa ida marida fa uduhu bu feebaree seeti ko wa ida maata fattabihu heure boo xamee ne nii dafa faatu ngal la way demal topp ko rawahu muslim mbokk gis nañu ne diine lislaam mooy diine joo xam ne daa bëgg nit ñi jaamu yàlla bañ ko bokkaaleeg dara waaye noonu it la bëggee nit ñi jàmm rek dox seen diggante ñu doon ay doomi ndey ndax suñu borom dane jullit ñi ay doomi ndey lañu innama almuminuuna ixwa loolu nag mu bokk lu koy saxal ay àq yu suñu borom gàll képp kenn ci ñun mu yoral ko moroomam yonent bi tudd fii juróom benn àq doonte ne boo delloo ci alquran ak sunna danga ca gis yeneen àq yu dul yii li jiitu ci loolu mooy heure boo dajeeg moom nanga ko nuyu mbokk nuyoo dañuy gis ne dafay jur cofeel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne du ngeen dugg àjjana mukk lu dul ne da ngeen a bëggante lu dul ne da ngeen a gëm te du ngeen gëm lu dul da ngeen bëggante xanaa du ngeen kaay ma wax leen loo xam ne su ngeen ko defee day da ngeen bëggante ñu ne ko xaka yi mu yàlla yónni mu ne tasaara leen ab nuyoo ci seen biir loolu nit ki ngay romb ne ko asalaamu aleyk ci la gën a gàtt loolu mbokk mooy yal na yàlla mu muccal la yal na yàlla muccal la asalaamu aleyk ca mooy la gën a gàtt asalaamu aleyk mooy yal na yàlla muccal la ci lan mooy muccal la ci fitnay àdduna ak fitnay alaxira te mooy lépp loo xam ne day lor àdduna wala muy lor alaxira di lor sa njaboot di lor sa alal di lor sa bakkan jullit bu dajeeg mbokk jullitam mi ngi koy ñaanal yal na yàlla musal ko ci loolu te mooy asalaamaaleykum mooy li ci gën a gàtt li ci gën a gàtt bokk na la ci gën a baax la ca baax ba tey nga dolli ci wa rahmatullah yal na yàlla muccal la te yàlla yërëm la la ca gën a mat mooy nga dolli ko wa barakaatu yal na yàlla muccal la yërëm la ca barkeel la mu mbokk ndax ki lay ñaanal lii nga comprendre li mu lay ñaanal ndax doo ko bëgg ah kay da nga koy bëgg wante ne malheureusement li ëpp ci nit yi tey xamuñu loolu ba soppee nañ lu yées ci lu baax la leen yàlla tànnaloon malheureusement da ngay gis te ay juri dañuy daje kay na ko caam mu ne ko saar ñu jàll dem seen yoon wala kii ñëw ah na ngeen yendoo na ngeen fanaane wala li ñu tubaab bi indil ça va ça va bonjour bonsoir mbokk yooyu ay nuyoo la yoo xam ne su dee da ngeen caayam day nuyoob ceddoo la su dee ne dafa ñëw ca gannaaw nuyoob yàlla nag beneen mbir la waaye suñu borom dane fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayiba su ngeen demee bay nuyonte nuyonte leen nuyoo ba bawoo ca yàlla muy nuyoo bu tedd bu barkeel loolu mbokk moom mooy la nga xamee ne nii mooy la ñu yàlla tànnal kon nañ ko nuyoo loolu boo ko nuyoo itamit dañuy gis ne tuyaaba ju rëy la la ñeel moom it mu war laa fay nan ko nuyoo ca la gën a gàtt wala mu tegal la la gën a baax suñu borom mu ne bu leen nit nuyoo nuyoo leen ko nam gën a baax ki la wax asalaamaaleykum nee ko waaleykum assalaam wa rahmatullah bu dee asalaamaaleykum wa rahmatullah nee ko waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu amma bu dee def na nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu am na ñu koy delloo di ca teg wa magfiratuhu doonte ne ni bokk na li gën a wér mooy nuyoo foofu la yem ay moo tax suñu borom ne tegal ko lu gën wala nga delloo ko lii mbokk la julit war a yoral moroomam yonent bi alei salatu wasalaam it daana wax ne même boo ko meree bu mu paasa ñetti fan julit du dajeeg moroomu julitam dummóoyu ko kee dummóoyu ko ñu paasa ñetti fan ci loolu ñaareel bi mooy bu la woo wuy jukko ida daaka fa ajibhu dafay nekk àq ci julit ci mbokkum julitam na doon kooku moo ko ëpp daraja ëpp ko xam-xam ëpp ko lépp su dee soxla na ko ci mbir moo xam ne nii waaja bu demoon man ko caa xettali loolee da ngay gis ne waa ji dafa war a dem lu dul mu yëg ne moom kat am na ngant bu ko tee dem wala boog mu yëg ne am na lor gu nekk ca dem boobee muy dem ca moom mi ngi noonu bokk na li ci gën a feddaliku liñ doon jël suñu dar sa démb muy ak ciit yonente bi alayhi salaam ne ku la woo ci ciit wuy joko mu ne wa man asa mi ngi noonu wa man lam yujib faqad asa allaha wa rasula ku ñu woo ci ceet amoo benn ngant wuy ji woo mooy nga yàlla ak yonent yàlla almuhim na nga ko wuy ji ñeenteel bi wala boog ñetteel bi heure bu ñëwee di la laay sàkku laa biir laayi biir waaw man de dama bëggoon takk soxna si luy sa xalaat man de dama bëggoon a tukki luy sa xalaat man de dama bëggoon a jënd ab oto luy sa xalaat man day nangam ala kulli xaal ci mbiri àdduna laayu ko biir lan mooy laayu ko biir xoolal la nga xam ne bu doon yow moom ngay def nga wax ko ko lii rek mooy laayu ko biir seetal yow bu doon yow a yaa toll situation boobu lan ngay def la ngay def nga nga wax ko ko bu ko wax mukk loo xam ne bu doon yow doo ko def da ngi noonu laayu ko biir ca rawatina nag su dee ni dafa am problème ak nit ay waajuram ay soxnaam ay dëkkandoom ay yu demee noonu ngalawaay muñ loo ko dénk ko ak muñ sant ko mu def ak rafetal loolu mooy laayi biir par saxu ñeenteel bi suñu yonente alayhi salaam ne su dee daa tissooli ngalawaay na nga ko ndokkeel ca mooy xadis la boo xam ne ñi ngi ko nar a jàng ci page bi bi mu jàkkaar lool mi ngi noonu bu tissooli na wax alhamdulillah yow nga ne ko yarahmukallah loolu mbokk donte ne xadis la bu ñuy dellu siwaat tamit da ngay gis moog bu njëkk baa yem ca mooy day jul cofeel ak yërmande comme niñ koy nar a jànge ci kanam waaye suñu yonente alayhi salaam teg ca ne wa ida marida fa uduhu su feebaree ba tëdd benn place ngal la waay dem leen ngeen seeti ko dem leen ngeen seeti ko wa ida maata fattabi'uhu bu dee ngalawaay demal nga topp ko gunge ko ba ñu jullee ko gunge ko ba ñu dugal ko ci bàmmeelam mbokk àq yi da ngay gis ne suñu yeneen wax na ko tudd ko ay àq donte ne ne yenn yi borom xam-xam yi dañ naan ay ngëneel la yeneen yi tamit ñu ne lii fardul kifaaya la bokk na ci la nga xam ne mooy ay ngëneel yu mag mooy lii di nuyoo ba ngay nuyoo borom xam-xam yi dañ naan sunna la bu dëgër amma fay nuyoo moom farata la waa ji la woo it àq la ngëneel bu mag la nga wuy jukkoo waaye duñ ne rek farata la ci la ku la woo nga wuy jukko naka noonu itamit laayi biir ga moom loole moom nit ki am nga droit ne ko loolu ngay wax day demal diisoo ci ak keneen mi ngi noonu rawatina bu dee mbir yoo xam ne ni yow xamoo ci lu bëri mu ñëw di la ca sàkkulaay biir bu ca aventure yu di wax loo xamul bu tisoolee ndax ñu wax ko yarhamkallah lu bëri ci borom xam-xam yi dañuy wax ne bu doon mboolool bu doon mbooloo la bu ko ca kenn waxee doy na bu aji nit feebaree ci ñu nit ñu yëg ne kat ñun am nañu ko seeti masalan waa ji ñoo bokk jàkka ñu yëg ne tëdd na mu am ñenn ci waa jàkka ñu dem seeti ko ñeneen ñu ko yëg tamit wàcc na leen loolu la ñuy wax ci famille bi loolu la ñuy wax ci kër ga mi ngi noonu bu faatoo it ndax waa dëkk bi yëg yépp ne daa faatu ñépp a war a dem ànd ak moom déedéet dañ naan fokk am na mbooloo boo xam ne ñoo ko war a taxawu yóbbu ko ñooñee buñ ko taxawoo dana wàcc ñi ci des amma bu doon dañ ko seetaan nag dëkk bi yéppay am bakkaar loolu mbokk muslim moo ko solo bu ñu demee suñu xadis bi ci topp mu ne waan abi hurayrata radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam unzuru ila man huwa asfala minkum dee leen xool ci ñi nga xam ne ñoo leen gën a suufe wala tanzuru ila man huwa fawqakum bu leen di xool ña nga xam ne ñoo leen féete kaw fa huwa ajdaru loolu day moo gën a yey alla tasdaru nicmatallahi aleykum ci ngeen bañ a xeeb xéewal yi yàlla def ci yéen mbokk mi ngi noonu julit da ngay gëm ne yàlla moo gënale ay jaamam ñii mu gënale leen ci alal ñii mu gënale leen ci xam-xam ñii mu gënale leen ci doole ñii mu gënale leen ci wér ila axiri su ko defee jullit yow mi bëgg a noppalu xamal ne am na ñu la féete kaw waaye am na ñu la féete suuf soo bëggee sa dund neex bul jël sa xol ak ko ci ñi nga xam ne ñu la ëppale loolee day naqaril sa dund amma bu dee ne yow da ngay xool ñi nga xam ne yaa leen tane loolee da nga ciy sant yàlla subhanahu wa taala buñ doon xool ci wàllu wér gi yaram da ngay gis lu la mën a dal ci nattu rek am na koo xam ne bis da nga ko romb ci bëggoo woon mel ne moom da nga noonu ca bëggoon mel ne moom léegi si benn lafañ boo xam ne mi ngi darngu wallahi am na ñoo xam ne loolu sax amuñu ko am ñoo xam ne nii dañuy béru nga pour déplacer wu ah suñ caam di xamoon nga ci ah mi nga noonu dar nga sax mënuñu ko dañuy béru nga pour déplacer wu et pourtant kooku mën na am di béru nga di déplacer wu mën na mi ngi dégg mi ngi gis nga gis koo xam ne ndeysaan moom moom moom ba mu juddoo musul dégg kii musul gis ila axiri ala kulli xaal loolu mooy ci wàllu wér gi wàllu alal ji loo pauvre pauvre pauvre booy xalaat rek gis koo xam ne yaa ko tanee su ko defee kon jullit la la yàlla wërsëgal nga sant ci yàlla loolee mooy del xool na nga xam ne da nga leen a da nga leen a tane suñu borom subhanahu wa taala lii di xel mu dal ci xol doomu aadama lay nekk mais du lu ko wër ci alal tey gis benn waay boo xam ne denc na ca banque ba ay centaine de millions am na ay biens te foo ko fekk mi ngi jàmbat gis benn waay boo xam ne dépense subaam sax assuré gul mais yàlla may ne ko xol mu dal moom la yeneen tuddee al ghina ghina nafs ca àdduna ñi ci ëppale mooy ñi ci doylu bokk na nag doylu googu la la koy may mooy ngay xool ñi nga tane la ah man kat am na ñu ma tane mi ngi noonu ñetteelu xadis bi mooy xadisu nawaas ibnu samaan radiallahu anhu qaala saaltu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anil birri wal ismi yeneen bi de dama koo laaj lan mooy ak njekk ak lan mooy ak bakkaar fa xaala al birru xusnul xuluq mu ne njekk day mooy nga rafetal sa jukko mooy jukko ju rafet wal ismu ma xaaka fi sadri mu ne bakkaar nag mooy la nga xam ne diis na ci sa dënn ba wa karixta an yattalia alayhi naas yaa ngi sib nit ñi yëg lool na yow mii loo def la mbokk kii de laaj yonent bi alayhi salaam al birr birr mooy ak njëkk suñu borom mu ne wa taawunu alal birri wa taqwa wala taawunu alal ismi wal udwan borom bi nee na da leen dimbalante ci njëkk ak ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci ism muy bakkaar ak noonu sahaabi bii ne yonent bi alayhi salaam lan muy birr yonent bi daal di koy tënkal mbaax lan mooy mbaax mbokk julit mbaax mooy jukko ju rafet mbaax mooy jukko ju rafet lan mooy jukko ju rafet borom xam-xam yi wax nañ ci lu bari bari bari waaye bokk ni li ko tënk mooy képp koy jëflenteel jëflenteel ak moom la nga bëgg mu jëflent mu jëflente ko ak yow lii rek mooy jikko ju rafet mooy fexeel ba kum mën a doon ci àdduna nga jox ko ak ba nga bëgg moom mu jox la ko masalan sa soxnaa ngi nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne walahunna mislu lidi alayhinna bil maaruf nee na ñeel na leen ci aq lu tol ne aq ba nga xam ne war na leen ñu leen koo defal donc bu dee képp koy jëflanteel nga jàppe ko na sa bopp rek yow baax nga da nga noonu kenn bëggul ko ko wor kenn bëggul ko ko nax kenn bëggul ko ko suufeel kenn bëggul ko ko toroxal ku nekk bëgg na ko ko teral ku nekk bëgg na ko ko yëkkati ku nekk bëgg na ko ko fonk kon al bir al al birru xusnul xuluq jukko ju rafet mooy la yeneen bi alei salatu wasalaam wax kenn ci du gëm xatta yuhibba li axiihi ma yuhibbu li nafsi sa ngëm balaa mat sa mbokk jullit da nga koy bëggal li nga bëggal bëggal sa bopp mu ne ko waaw d'accord léegi nag lan mooy bakkaar mu ne ko bakkaar daal mooy lépp loo xam ne bi nga ko defee sa xalu dalul mbokk jullit da ngay jàng imam Sarr mi am na lu bëri xamagu ko ci ay lu yàlla tere ak yéen ak ñu ñu ëpp xam-xam waaye léeg-léeg mbir nga def ko mbir moomu xamoo ci àtte l'islam mais mu ñagg sa xol lool diis sa xol lool yeneen tubaab sax mu ne ci bëggoo nit ñi xam ne lii yaa ngi koy def mu ne loolu mooy bàkkaar kon de loolu benn jugement la boo xam ne bépp mbir booy gis nga def ko muy dalul sa xel rek nga raway nañ ci bàyyi xel loolu ñun ñu yàlla nattoo ñu ñuy posé question da nga lay gis ab caamin mu def njombeem ba pare ñu ne man daal imam li ma ko def pare daal sama xel dalu ci li ngi noonu sama xel dalu ci naam parce que da nga koy def mais sa xel du ci dal li ngi noonu yonent bi sam na ne nag loolu la loolu it mu lay jàngal ni julit heure boo demee ba benn mbir daal di teew sa xel daal dalu ci nga la waay bala nga cee engagé demal ko la ëpp xam-xam nga laaj ko ci ñaareel ba it lépp loo xam ne yaa ngi koy jëfee te bëggoo nit ñi xam ne lii da nga koy def nga la waay bokk lépp looy def ci bëggoo nit ñi xam ne li da nga koy def nga la way ba ko al ismu mooy ma xaaka fi sadrik wa karihta an yattali alayhi nas li ngi noonu loolu mooy xadis bi nga xam ne nii moom lañ mujjoon a jàng ki ko solo di imam muslim rahim rahimahullah
wa an ibni mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنهم متفق عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه لكن تفسحوا وتوسعوا متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير والنار على القارب والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزم على الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ على الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي
kon mbokk xadis bi nga xam ne moo ci tegee mooy وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة بدي دنجن نك نيت فلا يتنادى اثنان duna al axar ñett ña bu ñu nekk di déeyoo bàyyi ka ca des xatta taxtalitu bi naas ba baa ngeen di jaxasoog yeneen nit ña min ajli anna dalika yuxzinu ndax loolu kat dafay nekk lu koy tiis muttafaqun alayhi wal lafdu li muslim nii la ko muslim solo mbokk gis nañu diine lislaam it mooy diine yi dàq bépp ñagg-ñagg diggante jullit ñi moo tax yonent bi alayhi salaam ne bu ngeen toogee ci benn place nekk leen fa lu dul ñetti nit bu ñaar ñi beru di déeyoo loo xam ne keneen ki dégg ko ndax déeyoo boobu ñuy déeyoo mi ngi wane ne li ñuy wax de bu ñu sañoon yow doo ko dégg ca loolu it luñ cay dégg dégg luñ cay déggee mooy ñàkk wóolu loolu lay feeñal kon is islam ne bàyyil ba yeneen i nit ñëw su boobaa kuy déeyoo mën a déeyoo ay bu ngeen nekkoon ñeent ñaar ñi mën nañu déeyoo ndax dana des yeneen ñaar loolu ñu wax ci déeyoo bi it la ñuy wax ci làkk bi ñett ngeen yéen ñaar ñi yéen a dégg la ngeen di wax kii déggul li ngeen di wax su dee yéen ñëpp am nga langue bu ngeen mën a waxante ñaar ñi amuñu droit di utiliser langue boo xam ne ñeen ki dégg ko ndax loole da ngay gis ne dafay doon luy tiis ci moom mi ngi noonu ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amma bu dee xadis bi ci tegee mooy xadis ibnu omar radiallahu anhuma qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa yuqimu rajulu rajula min majlisihi bu kenn góor di yëkkati beneen beneen góor ca fa mu toog summa yajlisu fiihi gannaaw bu mu dem di fa toog walakin tafassahu waaye na ngeen doon ñuy xajalante wa tawassahu te di yaatalante muttafaqun alayhi mbokk ci respect bi jullit yoral moroomam it doomu aadama yi bu ñu dajee fa ñuy daje ka nga xam ne moo jiitu moo am privilège toog fa muy toog su ko defee to nit ki amoo droit ñëw di ko yëkkati yow ñëw di toog foofee loole da ngay gis mooy bu dee place yoo xam ne ñëpp dañ faa yem donte ne ne léeg-léeg nga dem ci ay ndaje yoo xam ne gis nga ay fauteuil yu ñu bind réservé yow it sëñ càmbul wax ne ñëpp fi bokk yëpp ma ñëw toog da nga bàyyi ban toog loola fa ala kulli xaal loolu la yonent bi alei salatu wasalaam wax mu ne bu leen yëkkatante waaye di leen yaatalante soo déggee yaatalante kon place la boo xam ne bu ñuy toog ci suuf la nga xam ne nit ñi daan ca mën a toogalante mën na nekkit ay banc yu gudd yu ñuy toog yaatalante leen mi ngi noonu su ko defee doomu aadama yi en général ku ne xam ne ni ñuy toogee léegi-léeg fukki nit mën nañ toog ci place place bi boo ñëwee nga jàpp fees na waaye bu ñu yaatalante rek ñaar mën faa dugg mu ne kon au lieu que nga yëkkati nit ki walla waaye yaatalante leen loolu mooy la nga xamee ne ni mooy teddaange bii lislaam maye bokkul ak nag yow julit nga gis koo xam ne nii jox nga ko cir ci xam-xamam walla jox ko cir ci ay atam tax ba yow nga jël sa place jagleel ko ko loolee moom da ngay gis ne teraanga boobu kuñ ko defal dañ naan alkaramatu la turad bu dee waa ji moo am moom cooba rek boppam jóg ne la toogal su boobaa teraanga la boo xam ne loolu moom kenn du ko delloo mi ngi noonu amma bu dee xadis bi nga xam ne moo ci topp mooy xadisu ibnu abbas radiallahu anhuma qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ida akala ahadukum taaman kenn ci yéen bu lekkee ñam fala yamsax yada bu mu nekk di fomp ay loxoom xatta yalaqaha lu dul dafa mar baaraam ya aw yuliqaha wala mu marloo ko keneen muttafaqun alayhi mbokk ñun bokk na nattu boo xam ne ni ñun sénégalais yàlla nattoo nañu ko yonent bi alayhi salaam da doon wax naan seen ñam xamuleen fu barke bi nekk mbokk lii sunna ci lekk mooy nañu lekk bool bi ba mu jeex tàkk ñu fomp ko lekkam jeex tàkk mar suñuy baaraam ndax xamoo fu barke bi nekk malheureusement ñun sénégalais loolu du suñu aada ca réew moo dem fexeel ba xam aadaam na benn waay boo xam ne nekkoon na bitim réew ca Madina yàgg fa xam naa dem na xëy na daal ba fàtte aaday aaday Sénégal fa mujj koy caami na ko jàpp mu ñëw daal kër ga ñu nekk di reer ñuy reer may reer ba mujj man suur naa sama biir bi fees ma bëgg mu jóg ma ne ko ah sëñ bi reeral de sa reer la de mu ne ah man koy suur naa xanaa pour suurnal ko rek ma ne ko de tey ba dee jël comme ça waay ñu topp bool ba di ko lekk ba mu jeex tàkk bokk loolu xam ngeen ñun sénégalais li ñu xam ah boo amee gan bu dee ñaari nit a da ngay indi lekk ñeenti nit tegal ko ah loolu kon lu jara xam la loolu suñu aada la ala kulli xaal la gënoon bokk ci lekk mooy ñu lekk ba mu jeex ñu mar suñuy baaraam islamit bëggul yàq ak yàq ga lu mu tuuti tuuti te mooy jële sa loxo ci cere ji wala ci lu mu mën a door dem rek raxas wala fomp déedéet yonte mën a mar ko mar ko wala boog nga jox ko ku la ko maral xanaa muy ku lu gom ab siit xëy na waaw waaye dana dana jafe loolu ko jox sa baaraam bu dul jamono bi jëkk bi jaam yi di jaam yi di am jamono bi jaam yi di am dana jafe keneen ku ñëw dina maral say baaraam waaye al muhim rasul sallallahu alayhi wasallam loolu la ñuy wax ci loolu ñu war ci bàyyi xel amma bu dee xadis bi nga xam ne moo ci topp mooy xadisu abi hurayra radiallahu taala anhu radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi salallahu alayhi walihi wa sallam liyuslim liyusallim alsagiru ala alkabir ngan la waay nay nuyu xale ci mag walmaaru ala alqaid ki romb na nuru na nuyu ki toog walqalil ala alkasir lim bu néew nañ nuyu lim bu mag lim bu bari muttafaqun alayhi wa fi riwaaya li muslim muslim nee na war raakib alal maashi ki war na nuyu ki kiy dox mbokk lislaam it ci organisation doomu aadama yi la ñuy xëccoo ñu daje ci mbedd mi ku nekk di xaar di xaar sa morom nuyu la waaye yonent bi alei satu sam nee na bu dee da ngeen a daje ki gën a féete suuf ci ndaw na dem na na jëkk nuyoo mi ngi noonu xale muy nuyu muy nuyu mag xale muy nuyu mag bu dee ne da nga fekk mbokk jullit bu toog yow ngay jàll yow miy jàll yaa war a nuyoo su dee ne ñeenti ñi ñëw yéen seen groupe ñett ngeen wala ñaar ngeen war a daje yéen lim bu néeg bi yéen a war a jëkk a nuyoo su dee ne da nga war masalan yaa ngi sa oto romb sa mbokk jullit buy dox ci tali bi yow yaa war a freiné wala nga wàññi ala kulli xaal yow mi nekk sotti bi daal yow yaa ko war a nuyu yaa ngi dégg loole mbokk da ngay gis mooy atte yi nga xam ne nii islam da koo atte loolu nag ay ay ay ay ngëneel la yoo xam ne organisation la waaye xatta bu dee ne yow mi nga xam ne àq la woon ñu jëkk laa nuyu yaa jëkk nuyu yit am nga tuyaaba ju rëy rëy rëy am nga tuyaaba ju rëy rëy yonente bi alei salaam daana wax ne ay juri dey bu ñu dajee kii dumoo yi kii dumoo yu kaza wa kaza ki gën ci ñu mooy ki jëkk nuyu mbir la yoo xamee ne nii léeg-léeg sunu ndaw ñi ndeysaan boo xamee ca xàmmee woo mën na jur fitna yàlla mës na dogal benn ci ndawi jàkka yi ñu dëkkoon fii ci terrain basket bi may waxtaan ak moom muy wax ne moom bàyyam mi ngi fii mais du fa dem ma ne ko mais du leen jotale mu ah daal dañu am problème yàlla dogal baay bi doon ñëw fii julli si ci jàkka ji ma woo baay bi na ko waaw yow diw lu leen jotale mu ne ah liñ jotale day dama tukki ba ñëw bi mu ñëwee romb ko mook sama yeneen doom ci saal bi ma dem dugg ci sama néeg te xam ngeen aada yi rawatina aada yi alpulaar ak yenn région yi kilifa gi bu ñëwee day dugg njaboot gi ñëw ñëw nuyu si ko nee na bi ma duggee léegi xale yépp ñëw nuyu ma ma ne waa ki ma romb ma diw ci saal bi ñu ne ma kay mu ne ko waaw diw mu naan lu tax nuyoo ma mu ne ma yow mi ñëw yaa war a nuyoo mu ne ko ah maa la war a nuyu mu ne ma nag su dee maa la nar a nuyu moom loolee na ngay xam ne suñu diggante yàqu na juróom benn at teqalikoo nañ ko six ans waaw yàlla miy def lu ko neex ah taxaw nañ fii ci buntu jàkk yu di jege une heure de temps yàlla doog leen a jubali te damaa wax xale bi yaa tooñ yaa tooñ yaa comprendre lu texte yi yaa ngi dégg sa bàyyi la d'accord romb na la nuyewul mais yow àq la yow yaay doomam nga nga dem nuyu jukko yaa ko war a jokk falilaa alhamdu xale bu baax la ndax sunna moo tax mu teqalu ko baayam mais comprendre loolu it moo tax toujours xale yi ñu leen di bëgg ñuy teey mi ngi noonu ala kulli xaal doomu aadama bi mën na am yow nga yoroon àq ñu nuyu la waaye ka la ko war a jox bu la nuyuwul it nga la waay yow bu mu tey nga def sa àq yow bokk na ci loolu mooy waajoo xam ne nga naan dama koy nuyu du ma ko fa du du ma fay boo ko romb nuyu ko rek yow dem sa yoon am nga sa tuyaaba jeex na am nga sa tuyaaba boo ko nuyu rek am nga tuyaaba yow bu la fayul kooku c'est son problème moom dégg nga malheureusement nag bu ñu demee ba suñu jamonoy tey ñu jaxasoog tubaab bi yéen a gën a xam ne tubaab du nuyu lu dul ko mu xam am déet loolu it moo tax mbokk xool leen suñu ndaw ñi bàyyi leen leen xel ndax gis ngeen suñu jeunes yi di romb nit ñi ci mbedd mi di leen nuyu laa ñoom bu ñu dajee du nuyonte ndax dégg nga da nga dégg asalaamaaleykum waaleykum salaam laa booy sawa sawa jeex na dem nañ ba sax milieu yu bari wallahi ay banque wala feneen wala feneen boo ñëwee fekk mbooloo taxaw nga ne asalaamaaleykum wa rahmatullah ñëpp lay gëstuwaat waa ki moom fu mu jógee yaa ngi dégg parce que ñu jàpp ne yow bokkatoo loolee mbokk nañ ci bàyyi xel bu baax nit ñi ñàkk a def seen aq bu mu rey yow aq bi lislaam jox la ca ubbil la ci ak tuyaaba mi ngi noonu amma xadis bi mujj a jël mooy xadisu ali ibn abi talib radiallahu anhu qaal qaala rasulullah sal allahu alayhi wa sallam yujziu an iljamaa ida marru an yusallima ahaduhum dana doy ci mbooloo bu dee dañoo romb ay nit kenn ci ñoom nuyoo wa yujziu an iljamaa an yarudda ahaduhum dana doy ci mbooloo kenn ci ñoom daal di fay rawahu ahmad te loolu it mbokk mi ngi noonu tey nekk nañu ñett ñeent ñuy romb ay nit a ngi toog bu kenn ne asalaamaaleykum rek dana yóbbaale mbooloo mi waaye ñoom ñu toog it bu ci kenn waxee waaleykum salaam dana yóbbaale mbooloo mi loolu mi ngi noonu ci organisation bi nga xam ni islam yombal na ko ci wàllu googee
وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبلغ اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه اخرجه مسلم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم اخرجه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن احدكم قائما اخرجه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امتحن احدكم فليبدا باليمين واذا نزع فليبدا بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع متفق عليه
kon mbokk xadis yi ci tege ki koy nettali ba tey wa anhu muy ali radiallahu anhu qaal qaala rasulullahi sal allahu alayhi wa sallam laa tabda'u alyahuda wala annasara bisalaam bu leen jëkk nuyu mukk yahud yeeg nasaraan yi wa ida laqitumuhum heure bu ngeen dajeeg ñoom fi tariq fattaruhum ila adyaqihi na ngeen leen xatal xiir xiirtal leen ba ñu dem ca fa gën a xat axrajahu muslim mbokk kon lii day wane jullit heure bu dajee yahud ak nasaraan bu mu ko jëkk a nuyu loolu nag borom xam-xam yi am nañ ci tuuti juyoo juyoo ba mooy ndax yahud yi ak nasaraan yépp la am yahud ak nasaraan yi nga xam ne jamono yonent bi ak ceddo daa nekkoon ci ñoom nga xam ne bu ñu daan nuyu yonent bi alayhi salaam ñaan ko assalaamu aleyk te mooy yàlla na nga dee ñu ngi noonu assalaam ci ñoom mooy ak dee yonent bi alayhi salaam di leen wax bu leen leen jëkk nuyu suñ leen nuyoo yéen wax leen wa aleykum loolu kon ndax ci ñoom la wala dañ koo mattale ci ñëpp am na ñoo xam ne dañ ne dañ koo mattale ci ñëpp jullit du jëkk nuy chrétien wala juif ñu ne bu dee mën loo ko ñàkk mëne ba nuyu nuyoo ko beneen nuyoo ba dul asalaamaaleykum ñëw nga fekk ab chrétien nga ne ko waaw waaw ça va Paul mu ne ko noonu ilaa xëri may wax mais bu ko wax asalaamaaleykum donte ne am na ci ñeneen ñoo xam ñoo xam ne ñoom dañ ne suñu borom dane la yanhaakumullah an alladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ñi nga xam ne ñoom ci ahlul kitab lañ bokk ca musuñu xeex ak yéen ñi ngi séq ak yéen jàmm ñooñu man ngeen digg doomu seen diggante su la wóoroon ni chrétien bu la rombee dafa naan la asalaamaaleykum yow it boo ko rombee am nga droit wax ko asalaamaaleykum mi ngi noonu bu dee ne gis nañu nag ñoom duñ la nuyoo asalaamaaleykum su boobaa yow nuyoo leen la nga xam ne dañ la koy nuyoo beneen bi mooy bu ngeen dajeek ñoom ci yoon jullit la yàlla jox teddaange ay yoon bu am bu xajalaate dee am chrétien wala juif moo la war a xajal mais yow wurloo ko xajal muy jàll teg si ngeen benn place boo xam ne kenn war a jàll yow bu ko xajal moom na la xajal nga jàll nekk ngeen ñeent wala juróom ñu war a ñëw place boo xam ne mu ñu leen fawroo fuloo fokk am ñu tafu ci yoon bi ñeneen ñi jàll yéen yéen jullit ñi continuer leen seen yoon ndax yéen a yor teddaanga ci seen kaw walillahi al izza wa li rasulihi wa lil muminin loolu kon la xadis boobu di jàngale amma bu dee xadis bi nga xam ne moo ci topp mooy xadisu ali ba tey radiallahu anhu qaal ida atasa ahadukum ba kenn ci yéen tissoole falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu axuuhu yarhamuka allah naka frère am ba wax yarhamuka allah wa ida qaala lahu yarhamuka allah bu ko waxee yarhamuka allah falyaqul lahu na ko wax yahdikum allahu wa yuslihu baalakum yàll na yàlla jubal la te yéwénal say mbir yépp mi ngi noonu mbokk bokk na ci yërmande lislaam yonent bi alayhi salaam ne kenn ci yéen bu tissoolee mu sant yàlla jàng nañu sànq ne jullit bu tissooli sant yàlla da nga koo war a ndokkeel te yéen mbokk tissooli bokk na luñ ciy wax benn genre ngelaw la bu nekk sa yaram di dégager wu ci force loolee bu continué woon sax ci yaram bi mën na laa lor looloo tax bi nga ko génnee nga ne alhamdulillah comme tey jii boo doon lekk ba pare ni ngay waxee alhamdulillah léegi nag jullit bi dégg yàlla defal la xéewal nga sant yàlla alhamdulillah te mooy sant yi ak màggal yi ñeel ne yàlla moom it na la ñaanal yarhamukum Allah ey yow mi am xéewal sant ci yàlla day yàlla na la yàlla yërëm ca mbokk malheureusement li ëpp ci nit ñi tey seen xéewal santeetuñ ko yàlla jalla wa ala yàlla na la yàlla yërëm su ko defee yow mi nga xam ne yow lañ wax loolu yow it nga ne ko yal na la yàlla jubal yahdikumullah yal na la yàlla jubal ci sa mbiri diine yal na la yàlla jubal ci sa mbiri àdduna hidaaya boobu ñaar la xamal la wërsëgal la nga jaar ci ca it wa yuslihu baalakum say mbir yal na yàlla defaral la ko te mboo ko xam ngeen ne amul kenn ko ay mbiram mën a baax lu dul ko yàlla jàppale loolee kon moom ñaanal na la benn ñaan yarhamukallah yow nga ñaanal ko ñaari yaan mooy yahdikumullah wa yuslihu baalakum mbokk xoolal code bi li ñu tuddee benn code boo demee franc-maçon yi am nañu seen i code mais xoolal jullit tey yaa ngi toog ci benn restaurant yaa ngi toog benn car ñu toog mujj rek benn waay pistool yi ne ne ne alhamdulilah tey ngeen mas a daje nga ne ko yarhamukallah mun na la yahdikumullah wa yuslih baalakum mbokk ndax loolu ak mbokkoo du feeñ seen diggante ak yërmande ak jokkoo ah lii mooy la nga xam ne mooy mooy jullit mais malheureusement dañuy yàlla nattoo ñu jaxasoo ak occidentaux yi tubaab yi yéen ñiy déglu journal ak télévision kan moo mës a dégg journaliste bi présenté Tussauds ba pare ne alhamdulillah ndax mës ngeen koo dégg boo ne Tussauds pardon pardon waaw bu dee gars yi nekk ci mbedd moom Tussauds li merde ñu ngi def ñu ngi def waaw mbokk di loolu tubaab bi mu ñu ko indil waaye jullit bu tistoolee day sant yàlla alhamdulillah ñaareel bi itamit nit ñi ci seen réeri diine sun maam yi da ngay dégg ñu naan ah moom kay fu mu tistoolee ñu ne ko yarhamkallah loolu xam nga boo ko déggee mooy lan mooy siboorukat yi siboorukat bu topp borom alal moom fu mu toog ñu toog fa bu tistoolee ñu ne ko yarhamkallah yaa ngi dégg waaye mbokk yarhamukallah kenn waru koo wax lu dul ku tis lu dul ku sant yàlla ca ku ca ku sant yàlla da nga ko war a wax yarhamukallah su ko defee moom it la mu delloo la ñaan googu yahdikumullah wa yuslih baalakum lii mbokk mooy secret bi nga xam ne nii islam wax na ko ci loolu donte ne ne borom xam-xami caamin yi am na luñ ci dolli te it wax dëgg yàlla bokku ci day gis ñu bëri bu ñu géexee ne alhamdulilah yaa ngi dégg mbokku géex yonent bi da daan géex moo ki saxaaba ca jàngalu leen woon ku géex na wax alhamdulilah yaa ngi dégg donc kon ñu xam ne bokkul ci zikr mooy foo géexee nga ne alhamdulilah la la doon tax alhamdulilah la la tax a géex ndax géex en général lekk ba suuru koy waral ab déet waaw fa nga lekkee ba suur daal naan ba man di foofu moom war nga faa wax alhamdulilah waaye ndax ndax zikr am na ci boo géexee nga ne alhamdulilah loolu yi dañ naan déedéet loolu moom saxul ci sunna amma bu dee xadis bi ci topp mooy xadisu ali ba tey la radiallahu anhu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa yashrabanna ahadukum qaa'ima kenn ci yéen bu mu naan fekk day taxaw mbokk lii xadis bi dañ koy tuddee ci xadisu ngëneel ay nekkul loo xam ne ni dañ koo tere naan taxaw bi dalil yonent bi alei salatu wasalaam bi muy aj ajam gu mujj ga bi mu demee ba ci teenu zamzam bañ root jox ko dafa taxaw naan ali mii di nettali xadis bi gannaaw yonent bi salallahu alehi wa sallam moom it nekk na ca aj ga ñëpp di ko gis mu taxaw naan looloo tax ba borom xam-xam yi dañ naan bokk na ci ngëneel booy naan nga toog waaye taxaw naan nekkul loo xam ne nii lu xaraam la mi ngi noonu nag leen gis ay yenn xadis yu taral sax naan kii naan kii taxaw di naan bu xamoon lii jor jori ci biiram donc dana ko wàccu kaza wa kaza waaye daal buñ dajalee texte yi ci ñëw yépp dañuy gis ne ngëneel la nga toog nga toog waaye taxaw bi dagan la ñu ngi mel ni tuur ndox ah ngeen baal ma ngir ndaw ñu comprendre di saw di taxaw bu dee na sunu aaday maam. daanaka moog naan sàngara xaw lañ xaw moom lañ xaw a yemele diw buy buy taxaw day saw ni ko waxee diw buy saw day taxaw loolu yi daanaka pour ñoom aaday kéeféer la boo xam ne ku ko def day garaaw yaa ngi dégg waaye mbokk loolu it sax na ci Buxaari yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem ci benn ñagu wa ansaar taxaw tuur ndox loolu it kon dañu naan la toog day moo gën waaye taxaw tuur ndox loolee lu dagan la ñu ngi noonu am na xadis bi ñu ciy mujjee mooy xadisu ali ba tey kon buntu yëpp loolu loolu la ci tegale xadisu ali radiallahu anhu qaal idan taala ahadukum falyabda bil yamin kenn ci yéen buy sol dàllam na jëkko sol dàllu ndeyjoor wa ida nadaa falyabda bi shimal heure buy summi dàllam na jëkko summi dàllu càmmooñ wal takunil yumna awaluhuma tunaal wa axiruhuma tunza na ndeyjoor ba doon lu ñuy jëkk jëkk a sol te na doon lu ñuy mujj summi lii it mbokk jullit suñu borom nee na yowmal qiyam buñ dajeeg moom dañuy xaaj ñaari mbooloo asxaabul yamin asxaabu shimal ñii féete ndeyjoor yàlla nañ ci yàlla boole ak ñii féete càmmooñ loola tax jullit ci àdduna de gaat nga ndeyjoor lépp lu rafet ndeyjoor la koy defee ñu ngi noonu loolu moo tax côté ndeyjoor ñu koy privilégié ci côté càmmooñ yonent bi sam ne kenn kuy sol dàllam jëkkal sol dàllu ndeyjoor waaye boo koy summi jëkkal summi càmmooñ ko defee ndeyjoor bi da ngay gis ne mooy ëpp privilège ci càmmooñ ndax moom lañ jëkk a solal ci moom lañ mujj solal loolu ñuy wax ci dàll it la ñuy wax ci chemise ba la ñuy wax ca pantalon ba la ñuy wax ci lépp lu jurit di takk da caa war a privilégié la nga xam ne nii moom mooy côté ndeyjooram loolu mi ngi noonu jàpp naa mën nañ yëggale dars bi benn yoon rek incha allah
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا متفق عليه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله أخرجه مسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري naam kon kon alhamdulillah Euh, bu dee sunu bind bi nga xam ne mooy mujj tey ci bunt bi jële nañ cay moom ba tey wan anhu muy ali radiallahu anhu qaal qaal rasulullah sallallahu alayhi wasallam laa yamshi ahadukum fi na'lin waxida walyan'iluhuma jami'an aw liyaxla'uhuma jami'a muttafaqun alayhi mbokk diine lislaam it dafa bëgg doomu aadama yi doon ñu correct doon ñu maandu maandu googee xatta ci say cër moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne kenn ci yéen bu mu doxe benn dàll kenn ci yéen bu mu doxe benn dàll bu demee ba amul lu dul nar a doxe benn dàll ngalawaay nu sumi dàll yépp mu def tànku neen mi ngi noonu mu am ci loo xam ne nii sunu mag ñi xamoon nañ ko boo ko dàll léegi la yomb waaye sunu mag ñu jëkk ñi dañ daan am problème mu dàll comme ni ñu amee woon problème mu mbubb looloo tax islaam ne booy sol solol ñaari dàll wala nga sol nga def tànku neen bokk na ci it ci sunna yonent bi alayhi salaam daana wax ne ngalawaay léeg-léeg dee leen doxe tànku neen loolee ay sunna la yoo xam ne soo demoon ci magi sunna yi masalan comme ne Cheikh Nasrul Albani rahimahullah nee nañ daana ñëw université Médine tànku neen lay def ndax sunna dafa digle loolu allahuma jamono ji ñuy dund moom boo toiletoon ba jekk jaar fii ci mbedd meeg tànku neen ga gaa yi jàpp moom mooy diw moom kañ la ko lii dikkal waaw mi ngi noonu ala kulli xaal mi ngi noonu kon aussi diine it fokk ngay bàyyi xel yenn yi bu doon daal ci milieu boo xam ne nii ña fa nekk ñëpp a xam sunna loolee baax na ci nit ki di dox tànku neen ne loolu yonent bi sama dafa dégle loolu amma bu dee xadis bi ci topp ibnu omar moo koy nettali radiallahu anhuma qaal qaal rasulullah sallallahu alayhi wasallam laa yanzuru allah ila man jarra thawbahu qayla mooy yàlla day du xool ci kiy diri mbubbam fekk day puukarewu mbokk yi ku yàlla dul xool yowmal qiyaam loolu mooy ñay gën a tar mbugal yowmal qiyaama mooy ña koy sol di ko bàyyi muy direeku ngir puukarewu am na ñoo xam ni xadis bi dañ caa yem ba jàpp ne mbubb mu gudd kon dara néewu ci su dee yow jubluwoo ci puukarewu waaye déedéet mbokk dafa am yeneen xadis yi wone ni bépp mbubb boo xam ne dafa romb sa kosten loolee mu romb dañ koy lakk ci biir sawara loolee ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee am na beneen xadis it bu ñuy wax ci abou bakar ba nga xamee ne ni def naan yonente bi alayhi salaam sama catu mbubb bii lay su ma ko woggantiwul rek dafay laal suuf yonente bi ne yow de doo ko def ngir puukaréew waaye almuhim mbokk julit soo dajalee xadis yi ca root soo demoon téere bu ñuy wax al azkar bu imam nawawi dajale na ci xadis yi wax ci bunt boobu muy xadis yu bari waaye ci tënk lañ la cay tënkal mooy lu grave la et très grave nit ki di sol mbubbam ngir puukaréewu amoon nañ benn dëkkandoo boo xam ne grand boobu mbasin yi dana bàyyi luy buubu buñ ko waxee waaye doo yëkkati sa mbubb bi mu ne i jaru ko su tilimee rek ma sànni yaa ngi dégg ma mayee yaa ngi dégg su tilimee rek ma mayee mais gars yi yàlla bëggul ko beew avant muy dee dara amatu ko gis ngeen natt bi ñu yàlla nattu ñun mooy jigéen ñi la yàlla sant seen mbubb na buubu jigéen la yàlla sant seen mbubb na buubu ba seen tànku di feeñ ñun nag contraire du moo ñu dal jigéen ñi ñooy sol courte robe seen yére nekk seen digg yeel góor ñu sol ay dara yoo xam ne dara yee mooy boobu inna lillahi inna ilayhi rajiun lii la ñu yàlla subhanahu wa taala nattoo waaye mbokk góor yonent bi alayhi salaam dane yére góor ci digg yeelam lay yem dara nekkul ci diggante digg yeel ba ba ca kosten ba amma la romb kosten ba loolee sa war a la jëm wala waay xoolal sa yére lépp loo xam ne romb na sa kosten demal woo ñëwkat bi fay ko cent franc mu yéegal la ko mi ngi noonu daan ci dégg it ne bépp yére boo sol ngir puukarewu dalay yóbbu ci mbëggalum yàlla la doon loolee romb na kosten wala rombul kosten grand mbubb la kolla lu mu mën a doon bépp yére boo sol di puukarewu ci kaw nit ñi loolu dalay yóbbu sawara yéen a ngi fàttali ko Qaaruuna suñu borom mu ne fa xaraja ala qawmihi fi zinati loolu ñu bàyyi ci xel bu baax amma hadis bi nga xam ne moo ci topp mooy hadisu ibnu omar ba tey anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qaal ida akala ahadukum falyakul bi yamini kenn seen buy lekk na lekk ndeyjoor wa ida shariba falyashrab bi yamini buy naan na naani càmmoñ ah naam na naani ndeyjoor fa inna sheytaana yakulu bi shimali ndax sheytaane day lekk càmmoñ wa yashrabu bi shimali di naani càmmoñ axrajahu muslim mbokk it gis nañu ne ñun suñu diine ak suñu aada mooy jullit ndey jor lay lekkee ba baa tubaab bi ñëw ci ñun indil ñu seen aada aada yi tubaab mooy tey bu ñu doon lekk ay ndawal ay yàpp ak yooyu sa paaka ngay téye ak sa ndey jor fourchette bi nga téye ko càmmooñ di lekk càmmooñ lu tax mooy seytaane mooy seen kilifa mais jullit du du lekk càmmooñ naan biit naka noonu tubaab bi moo ñu indil mburoog kaasu café yaa ngi dégg gaa yi ñun li ñu xamoon mooy en suñu saalihu Njaay maag suñu saalihu mooy dañ naan ndékki de su reer la am déet ndékki de su reer la waaye nguroog kafe tubaab bi ñu koy indil amoon suñu benn gan bi nekkoon jamono yee nekkoon ci yëmbal daa jógee fuuta gaa yi ñëw xëy suba joxe dagg mbur yi ak kaasi kafe yi mu daal di dóor ba gàtt ñu toog toog ba onze heures midi mu ne waa ji bu àndal waa waa waa ndékki li kañ la ñuy ndékki ñu ne ko waa mburu mi mburu mi kafe gi mooy ndékki mu ne ay ay yaa ngi dégg ala kulli xaal loolu lan la ñu jural ba da ngay gis benn waay boo xam ne ma nga gàddu kaasu kafeem ca loxo càmmooñam gàddu misum baroom ca ndey jor ba bu xampee góox xamp góox mbokk déedéet booy munta ndékkee mburu kafe teg ko benn place booy dagg mburu lekkal ndeyjoor booy jël kaas bi jëlal ndeyjoor ca ndeyjoor amma naa ne ndey càmmoot loolu seytaane moo koy def te ku nuru nuru lu seytaan xam ngeen yaa ngi ci musiba lan ci mujje mbokk julit mooy xadisu amr ibnu shuayb radiallahu anhu qaal an abihi an jaddihi jële na ci baayam mu jële ci maamam ñoom ñëpp yàlla na yàlla gërëm leen radiallahu anhum qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam kul lekkal washrab naanal walbis walbas solal solul wa tasaddaq ca ngay sarxe fi gayri saraf ci lu àndul ak yàq wala maxiila wala puukarewu axrajahu abu daawud wa ahmad ila axiri mbokk kon yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafay dégal jullit ci ne ngalawaay lekkal ay jullit lekkal lu la neex lekkal ay fruit lekkal lu la neex lekkal ñu ngi noonu gannaaw ba yit naanal mi ngi noonu gannaaw ba it lu la neex solal gannaaw ba del sarxe fii ak mooy toga ñaar yi benn moom mooy yàq ak sarf mooy jéggi dayoo bépp jéggi dayoo jéggi dayoo dana nekk ci ñaar masalan yaa ngi yor sa kër kër gi day yàlla xam na ne ne ak cinq mille doy na fi sëkk dépense ngeen di dépense oo cinquante mille di tuur ganaar yee tuur yi kenn xamul loolu benn la ñaareel bi même bu doon te ne ne da ngay lekk sumbi wala mbiskit waaye lekk nga ba dépassé bornu feesal sa biir loolu ci yàq la bokk ak colit naka noonu mbokk julit day sol col gu modeste mi nga noonu waaye da ngay gis ay yére benn yére ñu dépense ci yenn dépense yi comme ni ko yenn góor ñi di defee ak yenn jigéen ñi di defee loolee mbokk jaaduwul jaaduwul rawatina nag ci dëkk yi pauvre yi mel ne suñu dëkk yi gannaaw bi alal ji dañ koy war a joxe mais joxe bi naka lay demee suñu borom mu ne yasalunaka maza yunfiqun qulil afwa doomu aadama da ngay xool la nga xam ne mooy des gannaaw say frais nga sarxe ko waaye bul joxe joxe ba dépense bi nga waroon joxe sa kër sax nga joxe ko loolee da ngay gis islam gërëmut loolu mbokk kon lii benn tënk la ci li ñuy tuddee buntu ay teggin yoo xam ne ëmb na lañ yoral suñu boroom ak lañ yoral suñu moroom yal na yàlla tënk wërsëgal ñu teggin yi gën a kawe jukko yi gën a rafet ya ñuy tax a texe àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax li nga jëga lan la ci la waaw la nga xamee ne nii mooy islam taamu ko ci ndeyjoor ndax dana ca bokk ki nga xam ne dafay bind wala jigéen bi togg wala leneen dafa am ñoo xam ne yàlla da leen bindee ñu nekk càmmooñ loole la ñuy def ci liggéey càmmooñ boobu lañ ko mën a defee ci bu dee ci wàllu bind la ak ay wàllu togg ak wàllu leneen bokku la nag loo xam ne da nga koy jël ak di ko joxe wala loo xam ne da nga koy sol comme ni ko lislaam jàngale mais bu dee na yow li nga xam ne da nga koo bëgg a def mënoo koo defee lu dul ci sa càmmooñ su boobaa islam du la tere loolu ca loolu ci wàllu liggéey rek la yem amma nag bu dee ne ci wàllu comme ni mu leen ko waxee waa ji nuyoo doo ñëw di nuyoo càmmooñ ak même boo doon da nga nekk gaucher waa ja nga xamee ne nii dafay jël du jëli càmmooñ même bu doon dafa nekk gaucher amma bu doon te ne yeneen yi nga xam ne dafay laaj doole lu mel ne rendi masalan waa ji nga xam ne dafa nekk gaucher mënul loxom ndeyjooram du am kàttan su rendee gauche loolu da ngay gis ne dara nekku ca mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam waaw waaw bisimilah waaw bisimilah waaw waaw aaye bi bi wax ne buñ leen waxee yaatalante leen yaatalante leen buñ leen waxee jóg leen jóg leen loolee beneen atte la jazakallahu xayran sax bi nga ko nettalee atte boobu dafa bokkul ak atte bi ñu doon wax julit fekk moroom mu julit te mën a ko jógal mu jóg mu toog place am bokkul ak kilifa jullit ñi nga xam ne mooy organiser yonente bi alayhi salaam day xutba bi muy xutba ci jàkka ji jàkka ji fees lenn ci magi badr yi ñëw taxaw ca ñooñu bu doon tey ñoom ña les officiers supérieurs de l'armée bi ñuy taxaw mu ne lenn ci ay ndaw may leen ñee ñu toog ndaw ñu jóg ñooñu mag ñooñu ñëw toog nafiqina wala mu woote égalité maandu tey di yëkkati ñi suñu borom nag ne jullit ñi bu ñu leen waxee jóg leen jóg leen loolu kon day toog bu dee kilifa goo xam ne moo jiite place tey xale yaa ngi nii toog ci ay fauteuil ay mag ñëw kilifa googu am na droit ne diw mayel kii mu toog bokkul ak yow ci sa lopp nga jóg na ko jógal ma toog loolu bokkul kon iza qiila lakum unsiju fansiju mooy bu dee dafa jóge dafa jóge ca kilifa ga nga xam ne nii moo jiite place ba na doon borom kër ga la imam bala chef de service bala ku mën a doon nga xam ne daal mooy kilifa place bi ku mel noonu am na droit organiser ko ci ak maandu tey wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam naam waaw loolu day mooy julli suba bi ak yoor yoor bi lu ci bëri bu dee ne ay dëkk yu mel ni Dakar fii dañ koy nekk à peu près ay ay une heure de une heure de temps mooy fi ngay gisee daal ñu ne fajar jot na ba ba jant bi di fenk loolu la ñuy tuddee ah yoor yoor muy nekk après ay une heure une heure dix minutes mu des nag li ñuy tuddee yoor yoor ak julli yoor yoor bu dee julli gi moom yonent bi sam danañ wax même bu jant bi fenkee nañ bàyyi ba mu dox lu tolloo xeec lu tolloo xeec au minimum war nañ bàyyi dix minutes après lever du soleil nga doog a commencé def say naafila loolu daal kon mi ngi noonu mooy daal fiñ ne fajar jot na nga yëg ko yow donte ne départ ba uute na boo demoon lu mel ni ay muslim pro xëy na mën na laa wax douze lay jot boo ñëwoon ñi koy natt fii ci sunu magi réew mi ñoom ñu ne la ban heure la ñuy wax temps yi sax du 28 xaw ma ah 28 donc y a 16 minutes de différence entre les deux kan moo ci wax dëgg allah subhanahu wa taala alam loolee ñu bàyyi ci xel bu baax allahu subhanahu wa taala alam kenn mënu cee dogu suñu demee ba kii nga xam ne ni mooy taqwimu ummul qura bi nga xam ne normalement mooy bi gën a jub bu jullit ñi mën a jàpp mooy bi nekk makka la borom xam-xam yi di critiqué ca kan moo ko critiqué ki nga xam ne ci jamonoom bi muy dund jàppoon nañ ne ci Arabie saoudite kuñ koy méngalal ci fiqaamu fa muy alxusaymin loolee daana wax ne léeg-léeg ñu def décalage dix à quinze minutes noonu ma ko critiqué noonu la ko Cheikh Nasruddin Albani doon critiqué donc yooyu ay nattale la yoo xam ne buñ ko jàpp à la minute près nit ñi ñoo nekk ci dëgg yàlla rek mooy ki xam yow nag da ngay seet la la ca doy nga jëfee ko wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw ah ah ki nga xam ne tey comme li ëpp ci Sénégal yi boo ko nuyoo ne la waaw waaw njaay njaay njaay njaay waaw ala kulli xaal yow da nga koo war a laajee biir na ko waaw delloo sant baax na mais del jëkk a wax waaleykum salaam almuhim niñ ko waxee ci biir dars bi mbokkum julit la romb nga ko sa àq la mooy nga nuyu ko fay na la fayul islaamam fayu la fayul islaam loolee du tee nga nuyu ko amma nag soo ko mënoon laay biir loolu mooy la nga xam ne mooy la gën mi ngi noonu xanaa ñu mujjee ci mbokk bi rek waaw waaw non tànk neen waaw day wax day wax rek benn médecin moo ko doon wax ngëneel bi nekk ci dox ci suuf ak tànku neen nee na loolu dafay am jeexital yu bari yu muy am ci sa yaram loole maa ngi toog ak léegi sama mbokk Saalix Ndiaye sànq rek ñu ngi doon wax njàngalam yeneen bi nga xam ak nga ñàkk a xam toujours rek njëriñ moo ca nekk looloo tax yeneen bi alayhi salaatu salaam doon wax ci la nga xam ne jaabir nettali na ko mu ne yeneen bi daf ñu doon wax léeg-léeg dañuy dox ak tànku neen almuhim kon nit ki mën na koy def xëy na ci këram wala boo demee géej comme ni mu ko waxee wala feneen wala feneen mooy léeg-léeg ngay dox tànku neen ndax suuf boobu ngay nekk en contact ak moom day am loo xam ne da koy def ci yow yal na yàlla xam loo ñuy suñuy ndigali yonent yal nañ ko yàlla bëggloo yal nañ ko yàlla jëfeloo ndax wallahi dara nekk ci lu dul yiwu àdduna gi wa alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain